jàmm ba lu ko niroog wala lu koy xajamal jile jàmm nag buur ci boppam moo ko daldi woote du kenn ku dul président Macky Sall ak falaatam ci njombaxtulu ka nguur gi kàddum yi mu njëkk yëkkati woote ab waxtaan ci diggante ma ku jóg politique yi ngir rek xar kanam gu naqadi lool géew bi wane ak ak lëndamaay mën a dañ ba faw woote boobe nag ma ko jagleel mboolem ñi nga xamante ñoom la ko séq féete ci ku jóg politique yi ci lu dul benn xaaj ak seen yéenekaay gi la tribune may ki xel ne Abdoulaye Wade nag ku ko dégg moo ko Abdou Diouf baa nga dajeeg moom ci jéeri ji wala ci kaw nang leen jotali yóbbante président Macky Sall te du lenn lu dul ne kon ñoom ñi fi doo woon ay kilifa liggéeyal bu ñu dem ci seen noppi koy jëmale kanam yéenekaay gi mel ni ku naan président Macky Sall kay xam ne ne nag ku la njëkk ci nekk bu lëndëm moo lay wax fa ngay toogee ak matak ak dal gu président Macky Sall àndal ci kàddu yi mu doon yëkkati ne ki démb ginnaaw ko palaatam ci bopp réew mi les échos yéenekaay loolee la daal di ci xatamu njëkk ànd gi nag taalalu ko loxo ci Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñi fi doo woon ay njiit réew bu ñu ko woon gannaaw ndax tamit day lu jëm ci ba xabtal ko ay kàddoom yu ñu yéenekaay gi dafay xam ne ni ngañaay loolee nag bu ñu ko féetale fenn nañu jàpp ne ki gagné moom moo di Sénégal ak aw askanam wi def ak tànneef rëdd seenu ko ëllëg daal di ko koy dénk képp ku wote baa nga ñàkk wote wala boog sax sànniloo ko saw xob ñépp ci yem ku ci nekk sa tànneef baa sax màndute nag des di la ko nangul ak it lum ci mën di doon ci les échos yéenekaay la ñu seen Abdoul Mbaye daanaka nag moom waxtaan yooyee président Macky Sall daal di woote nag jël na lépp def ko lettre xotti ko ko sànni géej jàpp ne kon loolee daanaka ay waxi nax sa xandang la ndax it nag Sall bu fekkente ne la muy wax dëgg la ci moom moo féetee ngañaay li ci jongante présidentielle yi yóbbu ko ci lu toll ci santage téeméer ba jël juróom fukk ak juróom-ñett ak lu teges lëf kon kay na dem ak boppam waxtaan ak boppam te bu mu ci laawale kenn ku féetee ci ku jëkk politique yi ay kàddoom dafa daan rek yooyu Barthélemy Dias yëkkati ci yéenekaay gi di vox li ak waxtaan bi président Macky Sall ubbi ci milem réew du Sénégal ngir rek ak boppam lu ñu def dog caa jublu vox populi xëy ubbil tey Barthélemy Diaz ay buntam waxtaan wu yaatu wu mu seq ak moom tolluwaayu ko réew mi ak it nag ba tey jile mu jàpp ne am na ak singili gu ñu def jëmale ci moom lam ko firndelee mooy ne bu demee nag ba police xamatul boppam di ko fetalekk ay takk der ci bureau otom ngir ñu lunjatu ko loolee ci la daal di sukkandiku ne dana yóbbu yëf yi ci yoon ne jaaduwul te tegeewul fenn ànd ak yu nag xamal ne waa APR gàcci fi moo leen di waaj a ndax ni ñu foqate ndam yi te ñoom ci seen bopp sax xam nañ ko ci seen seen biir ba nga ñaay li amul fenn fu ñu ko bëggee daanelul ay kàddoom lu dul ne dafa yab ak yobbante kii di Karim Meïssa Wade doom ci Abdoulaye Wade la mu ko xamal weesuwul ne su fekkente ne la muy woote dëgg la ci moom na ñibbisi ci Sénégal wàcc ci xare bi lu mu am jël ànd gi nag ëllëgu Sénégal nekkul la nga xamante ne dañ koo war a waxtaane ca Guinée Conakry loolee la Barthélémy Dias jàpp ne moom dafa jekkul jaaduwul ci dérub réewum Sénégal sax na yàqu ci réewum Sénégal ne ab workat baat boobee la ñu dal di jëfandiku ngir dal di ku ka def du kenn ku dul Mamadou Lamine Massaly ubbi les échos yéenikaay yi takk nay tobartem ci PDS nekkoon diggante maka Abdoulaye Wade jeex na ni ngénte tubaab ci yéenikaay gi lay xamle ne moom Mamadou Lamine Massaly tëdd na kaso ak yeneen i jafe-jafe yu mu mënul àddu lépp rek ngir Abdoulaye Wade ak cofeel gu mu amoon ci moom waaye nag dem na ba xam ne kookee di Abdoulaye Wade nekkoon fi àpp njiitum réew nag jarul dóor sa doom wala ngay mere sa dëkkandoo ndax it nag Abdoulaye Wade ku gis bi mu taxawee ci élection présidentielle day tekki ne président Macky Sall ci boppam la doon jàppal tànk ci diggante mag maître Madické Niang mi nga xamante kon moo amoon yéene wéyndil ak ndonam ci wàllu li rek tax na mu ne kon Abdoulaye Wade dana ko jébaane ba àdduna bi yépp xam la mu doon jublu na ci dëxañ ko ci àpp téere colonel bu woon Abdourahim Kébé bokk ci kilifteefu parti Rewmi enquête yéenekaay xëy na ñu xamal ne nag jàkkaarloo nag procureur bi nekki démb ab contrôle judiciaire ñeneen ñu yoon doon toppee wàllu ko ñaawteef du ñenn ñu dul ay ndaw yu féete ci ku jëkk politique yi doon militant yu coalition Idy 2019 yéeni kaay gi ne ginnaaw seen atte ba ñu taxawal na ci démb nag bàyyi nañu leen ñibbi ci seen bokki bopp amatul lenn lu leen di yoon di toppee ci ni ñu ko yéeni kaay gi di quotidien xamale vox populi ne benn fan ci weeru ko mars la leen tegoon loxo ngir suukale ak xambabtaal ci milim réew di Sénégal si benn ngànnaay toll woon nañu ci juróom-ñett kilifteefu parti réew mi nag dal na ci àttekat bi nag ba mu jël ci seen militant yooyu nañu ko mën a jàngatee du lenn lu dul nekkoon juge bi dafa weddi kii di Macky Sall mi amoon yéene sànq ku jéeg politique yi ci wàllu yoon ndaxam day ñoom ñaar amul kenn ci ñoom ko ci sànkoogum ci wàllu ko làmb ji ngir ndëgër laay ak toogaay gu wér gi nga wane mu di Balla Gaye numéro 2 ak seen seen seenup nataal doon xar kanam yu yànj lool la ñu seen ci xat wu njàkk sunu lamb yéenikaay seen jaar-jaar ak la leen masa boole ci wàllu ko lamb yéenikaay gi dafa tënk ne ab wujjilante bu dul dakk mook fii la ñu ko gisee ànd gi xam ne ne Balla Gaye numéro 2 nag raatale na Pikine Géejuwaay nag Eumeu Sène ab doxantukaay la ko def laataa muy xam le ne ci ñaar fukki atam ak juróom benn ci la nekk roi des arènes moom Balla Gaye numéro 2 Eumeu Sène jot boobale raayo ci fanweeri atam ak juróom ñeent Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 ba tey 2-0 la ñàkkul ne combat ba leen war a dëggal dàqale leen promoteur yi nag daan ci jublu ñi jublu ci source a addu ci mbirum waa ji di Mamadou ñi gën koo xam ci Mohamed Thiam mi ñu nekkoon moo dal di bom bakkanupp Ahmed Seye tutank boobee laq lu toll ci ñetti at ba tey jile mu doon aw tiis ci njabootam ki ñu nekkoon moo def ñaawteef googi le nag amul lenn lu mu laq-laqal àdduna ci faatu ko tànk boobee ak na mu ci taxee ma ngay xam le ne moom nag moo faat ci jobaray boppam tànk bi naqu ko ci pan amul yéene jël ne wupp Ahmed Seye di suuli ko te tiga du toj waaye nag mu jël sotti ndaxit nag aw welo pétal la jëfandikoo woon teg ci néew potu tànk boobee waaye diisaay ba ak it nag melokaan bu raglu ba lool ca la ko mujj sol cib saako xappi ko ni mbalit la ko xirtal ba mu dugg ci ñaawteef googee nag nee bàyyi xale bi ci boppam la doon fayanteeg ne mooy ki ko sëriñtu ba nam jaare fa yàqu